asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi football TV ñu naa bu baax ziar leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo ba tay rek euh, si ay jàngat di wax ne vidéo yi il faut ñu def ko vite fait vu que tay jii nii euh, on n'a pas eu le temps comme ñu ko bëggee montage des vidéos jël suñu micro on est obligé alors de def vidéo yi mu ka vite fait ñu ñu wax suñu xalaat si ay ay lu ñu gis am na beneen vidéo boo xam ne Pape Sarr ak Pape Gueye laa koy euh, jagleel mais vidéo bi Ismaël Sarr laa koy jagleel Ismaël Sarr tey saa naat naa ko deuxième mi-temps la dugg mais à ce rythme ak ni muy joué nii à Serigne Moun ku may tudd remplaçant lay Thomas Marseille non non seulement niveau nouveau système ça marche très bien Vitinha et euh, Aubameyang ñoo ngi sans problème bal baa ngi daw arrêt euh, Ona même si en Coupe d'Afrique ça va changer mais euh, Iliman Ndiaye pour mon cam xawul compliqué non par rapport au système parce que c'est c'est avec deux attaquants et que qui dit Gattuso wax na en conférence de presse que il m'a dit dans def prestations yu baax parce que neuf et demi donc système bi système am la wax na que carrément en conférence de presse donc, on mais Ismaël Sarr, ce même système technique avec le Sénégal, on a dit, vu que complémentaire avec Sadio Mané. Même, disons que peut-être à l'issue il a des erreurs, il y a des batailles. Mais peut-être que c'est le dernier match, mais je sais pas, Ismaël Sarr, en Afrique, il y a des gens mais le football, il y a des gens parce que Ismaël Sarr jamono bii nañu waxante rek man boo en 2018 bon, ma Ismaël Sarr fa nga gis en 2023 su ñu la wul Liverpool na la Manchester City kenn équipe yooyu laa lay wax kii parce que les football ni demul fenn quoi ay 3 trois quatre personnes ñëw nga am ko mën a taaje Pape Gueye taxaw nga ne da ngay forcer c'est j'ai pas compris ngay passe muy tous ay erreurs tactique technique parfois les déplacements pas au bon timing manam dal ay erreurs yu xamantene parfois si ay erreurs professionnelles la quoi erreur de débutant la et à ce rythme là ak système bi ma gis ni ni Gattuso jàpp ne ne marché ça marche très bien c'est à lui de de de poser les bonnes questions moom mii di Ismaël ça parce que franchement temps yi passe ni ñu doon critiqué Marseille yëpp moom mu ngi doon dugal ay biir mu ngi doon dugal ay biir Marseille passe andi na deux penalty donc mooy def li mu war a def xam nga donc contre ren def gis ngeen li mu def ay andi penalty et tout mais dans le jeu parfois man je dama koy défendre mais am envie défendre que parce que c'est un sénégalais sénégalais là parfois ta da ngay bëgg wax ne ne est-ce que mën nga critiquer critique yoo xamante ne yu objectif lay doon du doon critique pour critique mais franchement damay si dernier match yi gisuma lenn lu lu muy apporter offensivement gisuma daal gisuma du ay appel du contre appel du du ay occasion du du dara loo xamante ne mën naa ko teg na ko sama loxo Pape bi kii euh, Ismaël Sarr bi xamante ne mën naa si basé wu. je sais pas nag c'est quoi le problème mais je trouve que le nouveau système peut être par exemple je pense pas que c'est lii am la quoi système am la le nouveau système xanaa lenn ma euh, Gattuso def comme ni euh, nii Deschamps defoon avec commande xool xool te avec trois défenseurs mu xam ne mënul teg commande.

Gattuso Marcelino tek nañ fi 4-4-2 tek nañ fi 4-3 mais système bi ni mu marché match yu baax yi ni mu baaxee nii am occasion yu am nii mosuñu ko am di contre Lyon bi passé di tey contre Lorient donc c'est à lui de se voir pour l'équipe nationale du Sénégal sama xel dal na parce que Aliou Cissé da nga teg nga bon en général équipe nationale du Sénégal dafay gis ak loo ko mën a waxee mais au niveau de Marseille c'est à lui de travailler de positionner surtout ce nouveau système là. de de def ay vidéo euh, chez lui xool këram xool yan lan la def comme ay erreur lan la war changer et après voilà parce que après nii nii quelques matchs coupe d' commencé donc euh, Ismaïla Sarr loolu laa amul lu ma ci mën a wax ci commentaire bi loolu wax la mi noonu lañ gisee match yu Ismaïla Sarr dernièrement du côté de Marseille jaajëfal naa leen bu baax waxal mi beneen suuf seen football TV